لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيوغي نيو مبوكي يب لنزيار موقم ني نيك جي جروب واتساب لا ولا نيلا نيك فيسبوك ولا يوتيوب ولا انستغرام ولا ينين جروب ييغا خامني نيوغي اند اك نيون يب تي وقتان وي di sant borom bi subhaanahu wa taala di ko gërëm di ko ñaan mu dolli ay xéewalam ak yërmandeem ci suñu yonent alayhi salaatu wasalaam ak ay saxaabaam ak mboolem ñu topp seeni yoon ba keroog bis penc ba di gërëm bu baax mbokk yi nga xam ne ñoo ngi doon taxaw dawra bi waaye ak déglukat ak seetaankat yi nga xam ne ñu ngi ci àndoon ak ñoom tamit fu ñu mën a nekk di jéggalu bu baax ci raar gi nga xam ne nii raar nañ ko wax dëgg mu am sax yenn mbir yoo xam ne mbokk yi dénkoon nañu ko ñu waroon ko taxawee waaye yàlla dogalut ñu euh, jot gi may ñu ko euh, ñu di ci jéglu baax alhamdulilah tey yàlla dogal na ñëw na ñu fas yéene incha allahu taala ànd ci ak al oustaz Alfahima Ba yal na ko yàlla sàmm sàmm mbooleem borom xam-xam yi ahlu sunna yëpp yaa rabbi saxal ñu ci jàng ak jëfe téere yàlla bi ak sunna yenn bi alayhi salaatu wasalaam kon tey incha allahu taala ñu fas yéene ànd ak al oustaz Alfahima Ba mu defal ñu waxtaan wi nga xam ne mu ngi aaju ci saaraan wala ñu ne xaabaabal wala sax day ñu mën a wax ko ak ëppal gi nga xam ne saaraan la guyaatu lool waaye bari tamit lu muy faral di am lool ci yoon wii di yoonu murid te incha allahu taala cheikh bi dana ñëw ak ñun ci euh, saaraan googu wala boog ëppal googu wala xaabaabal googu euh, lan moo ko waral ndax lu bees la wala déet incha allahu taala ñu déglu cheikh bi euh, ñu ñaanal ko yàlla defal ko ak ubbeef ya rabbi barkeel ko barkeel aw làmmiñam boole ñu ci ñi nga xam ne nii buñ déggee wax dañ topp la ci gën a rafet wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad salaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين mbokk julit yi ginaaw bu ñu sante yàlla borom bi subhanahu wa taala di julli ci ku gën ci xeet bi di muhammad salallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala defal ñu sellal ci wax ak jëf mais ñu tawfiqu àdduna ak àllaaxira musal ñu ci pexey noonu di jaajëfal mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo taxawee séminaire bi ci ñiko organiser ba ci oustaz yu koy taxawé yàlla borom bi subhanahu wa taala fay leen ngeen fay def ko sen mizanu hasanat ndax yombul ci jamono ji ñu nek ak dëkk bi ñu dëkk muy Sénégal séminaire yi melni ñukoy amal comme ñi nga xamne ñom ñoom dañoo sacrifier di amal lu melni nga xamanteni jafena di ci duut baaraam ak di ci wax comme mbokk yooyu ñu jara ñaanal lañ ñu jara encouragé lañ ndax ñu bari tey ci réer gi nga xamante ni nit ñi nekk nañ ko mooy léeg-léeg dañ dul ñeme duut baaraam yenn mbir yi wala dañuy moytu duut baaraam yenn mbiri comme ñi nga xam ne yàlla dimbali na leen ñoom am nañ position wala nekk nañ ci position wala nekk nañ ci anam boo xam ne war nañ ci mën a wax yoon la ñu wax ci ñoo dindi nit ñi ndax amul benn borom xam-xam ci jamonoom dina gis yenn mbir wala yenn wax lu dul ni sacrifié wul boppam lu mel ni mu leeral ko misaal boobu mun ne ko jox ci imam ahmad ak masalatu xalqul quran imam ahmad ak jamono bi nga xam ne fës na ñuy wax ni alquran dañ koo sàkk ibnu taymiya rahimahullah moom ci jamonoom ci ñenn ci ahlul bidaa yi ba mu yóbbee ko ñu tëj ko kaso ak yu mel noonu Ibn Abdul Wahab ci jamonoom nga xamante ni euh, dañ ko génne dëkk ba mu nekkoon Diriyya mu dem feneen di woote ci wéetal yàlla ak di xeex tawxid ba yàlla borom bi subhanahu wa taala mee ko ndam di gërëm Cheikh Ousmane bi nga xam ne moom moo dalal moom it jàmbaar la ci tool bi euh, gis nañ lu muy def yàlla ko borom bi subhanahu wa fay ngeen di fay lu ñuy cërale woon ci séminaire bi mooy wax yenn exagération yoo xam ni dañ koy fekk ci tarixa bii di tarixa murit yenn yi ci ay wax la yenn yi ci ay jëf la bu ñu waxee exagéré nag mooy léeg-léeg jël bu ñuy jël seenub sëriñ di ko teg palaasu yàlla ak di ko dendale yàlla yenn yi nag léeg mu nekk ci mbindum sëriñ bi mooy waral yenn ëppal yi boo gisee ñenn ñi ëppal ci sëriñ bi ba di ko teg palaasu yàlla loolu nag léeg day dellu ci mbindu sëriñ bi suñu yitte nag nekkul jëmm sëriñ bi waaye suñu yitte moom mooy leeral wax yi te wax yi ñuy leeral nuñ ko firee jàpp leen ni lépp luñ fi firi ci ay waxu sëriñ bi ña nekk ci yoon ma noonu lañ ko firee lettre par lettre jàppal ni lépp luñ ko firee lépp luñ ko firee ci mbindu sëriñ bi ña nekk ci yoon bi noonu lañ ko firee lettre ak lettre luñ ci yokk kay mooy ñun dañoo indi la wër ci alquran li nga xam ne dafa wuuteeg wax jooju te laa shakk ni waxu nit bu wuuteeg waxu alquran ak sunna dañuy teg waxu nit jël waxu jël alquran ak sunna mooy waxu yàlla ak yonentaam bu wuuteeg bépp wax rek dañuy jël waxu yàlla ak yonentaam teg ko fa comme ñu tànnoon ci lenn ci ay mbindu kilifa gi danañ ko leeral ci yooyu ñu jiital ci ab téere boo xam ni bu siiw la ñoom bu ñu min la muy xaatimatu munaajaati balaa ñu ñëw ci yeneen yi ñu daldi jàngat téere bi yépp ba mu jeex ca tàmbale ba ba ca fu mu jeexee ndax téere bii di xaatimatu jaat yi jàppal ni ñu bari bu ñu demee tey ba ngay dégg ni sëriñ bi yàlla la sëriñ bi du dee sëriñ bi léeg ñu ngi koy dégg ci ñoom bépp mbindeef bu musa sosu ci kaw suuf sëriñ bee la gën ay sëriñ bi moom moo jiitu ñëpp loolu ñu ci bari ci téere bii lañ ko lañ ko teg ci mbind yi lañ ko teg xëy na buñ koy faram fàcce dina leer ci suñuy biir wax xaatimatu munaajaat yi soo ko déggee lu muy firi mooy déewante bu mujj mujjub déewante mujjub samay déewante maanaam sama déewante yu mujj kan lay déewanteel ñi ci yoon bi nee nañu day déewante yàlla ku ci mel ni Sàmbay day faral di dëggal wax jooju te koo kenn la ci borom xam-xamu yoon bi mu ne day déewanteeg yàlla comme nga dégg ci ni téere bi comme bokk na ci téere yu mujjee bind bu nekkul moom la mujjee bind ndax nee na déewante bu mujj bu mu mujj a déewanteeg yàlla comme la bind ci ci lu mu mujj a yàlla téere bi ci la bokk ci téere yu téere déewante yi bokk téere déewante yi wala mbindu déewante yi comme da sentir ni bii nii mooy bu mujj lu si njëkk mooy alxuraan ak sunna xam lu ñu fenn foo xam ni yàlla da ciy déewante ak nit balaa ñu ñëw ci mbind bi loolu faa ñu leeral yàlla da ciy déewante ak nit alxuraan ak sunna saxul ci alxuraan ak sunna déewante boo xam ni son yàlla da lay dee ndax ñoom tasawuf dañoo am lu ñu gëm di ko tuddee xaatif xaatif mooy daa am luy ñëw sa nopp rek am luñ ciy wax nga xëy rek nettali léegi lu ñëw sa nopp loolu doo jéem a xam kan moo ci wax doo jéem a xam nit la doo jéem a xam jinne la doo jéem a xam seytaane la doo jéem a xam yàlla la mais yow automatiquement rek yàlla ngay wax tayib léegi lu ci bëri nag ci déewante yooyu lan moo tax ñu dàq ni du yàlla ndax déewante yooyu lu ci bëri day wuuteeg yaxu alxuraan ak sunna te yàlla du contradiction masalan yàlla mënul wax ni kullu nafsin zaiqatul mawt bépp bakkan day faatu kullu lil umum après yàlla am ñum ci génne def contradiction am ku mu dee ne ko yow nag doode yow bokkoo ci comme dañuy gëm ni kom loolu jugewul ci yàlla ndax yàlla dañuy dàq ci moom bépp contradiction yàlla waxam benn la du ñaar bu waxee rek loolu lay appliqué wa man asdaqu min allahi qiila wa man asdaqu min allahi xadiitha amul ku gën a dëggu ku gën a dëgg wax que yàlla borom bi subhanahu wa taala bu waxee benn wax loolu lay doon du am contradiction tayib comme ñu ñëw dugg ci li nga xamante ni moom mooy mbind yi ñu jëm ko jàngat comme fii nee na هذه خاتمة مناجاتي بالخط هذا الخط وجعل الله تبارك وتعالى الشيخ أحمد الخديم كان له بكرمه الباقي القديم ونفعنا به في الدارين آمين mu ne lii mooy sama déwante bu mujj ci bind yi nga xamante ni moom laa koy bind maa ngi ñaan yàlla mu barkeel ko mu tudd turam mu ne tamit mu def ko loo xam ne day nekk yàlla may ko ci teraanga mu jëriñ ci ci àdduna ak alaaxira mu ne bismillahi rahmaani rahim xool leen ñaareelu page bi ma wàccee wa sallallahu taala ala sayyidina muhammad wa sallama tasliman mu julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa mu wax mu ne wa allamaka maa lam takun taalam gis nga ba mu ubbee ba mu jullee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii la indi wa allamaka maa lam takun taalam mu xamal la loo xamul woon comme fii nii dafa bëgg a wax ni comme yàlla am na lu ko xamal leneen loo xam ni nekkul ci alquran moo tax mu ubbee lii titre bi pour nga xam ni moom dafa am yu bees yu mu xam dafa am baatin parce que ñoom loolu la ñuy loolu la ñuy tegtaloo ñoom wa allamaka maa lam takun taalam yàlla xamul na la loo xamul woon te yàlla yonent bi la ko waxoon ñoom dañ koy tegtaloo ni ñoom tamit yàlla leen xamal loo xam ni kenn xamu ko woon nekkul ci alquran nekkul ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu wax foofu ne leen yonent bi sallallahu alayhi sallam wax bu mu wax ni yàlla wax bu mu wax ni xamal na yonent bi lu mu xamul woon da koo xamal ci histoire ay yonent yu paase da koo xamal ci lu xew ci jamono yu paase ci histoire ay yonent yu paase mu wax ko ci alquran da koo xamal mbir yu bëri yonent bi salaa sallam xamul woon yonent bi salaa sallam xamul woon waxu yàlla yàlla daal di koy xamal def ko ci dënnam waaye ñoom dañ koy utiliser ci xam-xamu baatin na yàlla mun na leen xamal lu mu xamalul kenn mu ne wasala alxaqu min alxaqil mubin mu ne lii de da koo jokk mu nekk ay dëgg lii muy wax lii dafa nekk ay dëgg jugee ko ci borom dëgg jugee ko ci borom deug naam mune li qada ma bana wa ma laysa yabin comme lu ñëk ni da la bëgg wax ni wax ji ku ko jox ci mom mom moy yalla yalla moko jox al haqq mom mom moy yalla mom moy yalla borom bi subhanahu wa ta'ala mu nek ay kaddu deug lu muy wax ni comme mom fi dafa ne yalla moko ko wax moy deewante bi nga xamne mom lañ wax mu ne lii qaada maa baana wa maa lam yabin yabiin lii qaada maa baana wa maa laysa yabiinu wa maa laysa yabiinu mu ne borom bi de womban na ci man loo xam ni dafa feeñ nit ñëpp xam ko ak loo xam ni feeñul loo xam ni dafa nëbbu kenn xamu ko borom bi xamal na ma ko borom bi xamal na ma ko comme fii nee na borom bi xamal na ko lépp lu feeñ ak lu feeñul mooy ñun nit lañuy gis ak la xam ak loo xam ni kumpa la borom bi rek moo ko xam wala kumpa la boo xam ni nit xamu ko moom nee na moom xam na ko moom comme fii muy woote woo xam-xamu kumpa lii xam-xamu kumpa woote woo xam kumpa alquran da koo dàq alquran nee na qul laa yaalamu man fi samawati wal ard al wal ard al illa allah mu ne def salaa sallam waxal amul kenn ku xam kumpa ci ñu nekk asamaan ak ci nekk suuf ku dul yàlla amul kenn ku xam kumpa ci ñu nekk kaw asamaan ak ñu nekk ci suuf ku dul yàlla ñu nekk kaw asamaan mooy malaaka yi malaaka yi xamuñu kumpa lu dul lu leen yàlla xamal ñu nekk ci suuf mooy yone mooy nit ñi mu ne nit ñi xamuñu kumpa nit ñi lépp luy dox ci kaw suuf mu ne xamuñu kumpa comme lii waxu yàlla la bu leer kumpa mooy loo xam ni yow feeñul ci yow yow doo ko gis doo ko yëg te nettaliwuñu la ko waaye sëriñ bi nee na moom lañu la feeñ mooy luñ ko nettali ak lu muy gis ak loo xam ni sax nit du ko gis te nettaliwuñ ko moom xam na ko maanaam xam na kumpa te yàlla nee na qul laa yaalamu man fi samawati wal ard al illa allah amul kenn ku xam kumpa ñu nekk ci kaw asamaan malaaka yi ak ci suuf ku dul yàlla yàlla ci beneen aaya mu def exception ci yonente yi mu ne aalimul gaybi walshahadati fala yuzhiru ala gaybihi ahada illa man irtada min rasulih mu ne yàlla moom mooy ku xam kumpa kumpam du ko xamal kenn lu dul ñamu tànn ci ay yonentaam ñamu gërëm ci ay yonentaam comme aaya bi yàlla borom subhanahu wa taala nee na yàlla xam na kumpa waaye am na lenn ci kumpam yoo xam ne dina ko xamal yonente yi yonente yi la wax léegi ñu xool kilifa gii ne moom xam na kumpa est-ce que moom ci yonente yi la bokk bokkul ci yonente yi comme moom génn na comme bokkul ci ñu xam kumpa ndax aaya bi dafa leer illa man irtada min rasulih lu dul ñamu gërëm ak ñamu tànn ci ay yonentaam xamal leen lenn ci kumpa te nekkul lépp ci kumpa la leen xamal de mais lenn ci kumpa comme gis nga comme kumpa yàlla moo ko xam lenn ci kumpaam def na exception ci aaya bi ne dina ko xamal yonente jeex na ku dul yonente comme bokkoo génn nga comme laa chèque ni moom génn nga tax du yonente naam beneen bi yonente bi sallallahu alayhi wa bokk na ci buy ñaan اللهم إني أسألك بكل, بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يندو صلى الله عليه وسلم نيان دانا يالا ما نغلي نيان تي بيب تور بو خامني ياكو موم بيب تور بو موم مو خام دانكو واتيه تي القران سميت به نفسك بيب تور بيغا تودي سا مو خام ان او انزلته في كتابك مو خام دانكو واتيه سا تي سا قران موي تور ييغا ñëw ci alquran sunna ñu xam ko mu ne awis tatharta bihi fi ilmi alxaybi indak wala mu nekk ay tur yoo xam ne yow yaa ko denc mu nekk sa kumpa comme yonente bi salaa ci boppam xamal nañ ñu am na ay tur yàlla yoo xam ne kumpa la yàlla rek ko xam moom xam ko mu ne yonente bi ci ñaanam mu ne awis tatharta bihi fi ilmi alxaybi indaka indaka ci yow gis nga mu nekk kumpa ci yow comme yonente bi am na lenn ci kumpa sax loo xam ne xamu ko waaye sëriñ bi moom nee na moom la feeñ ak la feeñul la nekk kumpa nee lépp yàlla xamul na ko parce que nee na moom dañ koo dee moom mu jàpp ni yàllaa ko dee comme niñ ko waxee yàlla du dee nit loo xam ni contraire alquran la comme yàlla day contradiction te boroom xam-xam yëpp dëppoo yàlla dañuy dàq ci moom contradiction mooy wax waxeet wax après waxeet mais xam nga ñoom suufiya à chaque fois seeni mbir mayu yàlla la xam nga sa raisonnement àggu fa sa xam-xam àggu fa baatin la yooyu la te baatin moom dajj nañ ko teg ko fële mu waxaat mu ne allamani ma kaana qabla al xalqi mu ne yàlla xamal na ma avant moo bind mbindaafoo ni xamal na ma avant moo bind mbindaafoo ni subhanallah nee na yàlla xamal na ko moom avant moo bind mbindaafoo ni comme ça veut dire que moom existé na avant bépp mbindaafoon di existé moom existé na mom nek na fi avant yàlla di sak minda foni lolou bëgg wax allama nii maa kaana qabla al loo lo xamni amona lo xamni amona bala muy sak muy sak dara comme fi ne gis ni mom neena yàlla xamal nako lo xamanteni won avant muy sak muy sak dara la mooy moom xam na am na feneen fu mu leerale ni mom nekkon na fi avant ñuy sàkk dara tayib loo xam ne bokkul ci alquran ak sunna yàlla borom subhana taala nee na kaana allahu walam yakun shay'un maahu yàlla dafa nekkoon fekk amul dara lu nekk ak moom amul dara lu nekk ak moom mu ne summa xalaqa samawat wal ard summa xalaqa fi zikri kulli shay mu daal di bind nag lawxul ci lawxul mahfuz lépp wa kaana arshuhu ala alma comme moom mu ngi la naan yàlla xamal na ma loo xamante ni avant muy bind asamaan ak suuf te yàlla avant muy bind asamaan ak suuf amul lenn lu sax ci alquran ak sunna amul lenn lu sax ci alquran ak sunna yàlla avant muy bind mindaa fooni bopp moom lii ak lii la doon def amul saxul ci alquran ak sunna avant muy bind mindaa fooni lu dul yoon salaa sallam wax ni kaana allahu walam yakun shay'un maahu yàlla daa nekkoon te amul dara lu ànd ak moom loolu mooy lu ñëw ci xadis mais moom nee na yàlla dee na ko xamal na ko sax loo xam lu xamul lu nekkul ci alquran xamul na ko lu yonente bi sax xamul ndax moom yàlla xamal na ko avant muy bind muy bind mbindaafoon yi mu ne man kaana lii bi karamin wa tilq yàlla xamal na ma encore képp koo xam ne day jëmale teraanga ci moom ak képp koo xam ne da ko boyal maanaam wëlis teraanga képp koo xam ne moom leneen la lu bokkut ak teraanga léeg-léeg tilqi da ci araab nag firi ku nay tilqi léeg day ñëw ci arab firi ku nay ku nay comme ñaar yëpp mën na nekk mën na am lu mu ci doon mooy yàlla xamal na ko moom képp kuy jëmale teraanga demale ci jëmale ci moom ak képp koo xam ne day nay jëmale ci moom nee na yàlla xamal na ko ba tey moom mu ngi des ci logique yàlla xamal na ko kumpa xamal na ko luy ñëw suba ba léegi ci logique boobu la des te loolu leeral nañ ko mu ne lam yanxu zaati jaalibu niiraani mu ne man sama jëmm ji noo du jëm safara sama jëmm ji du jëm safara waaw sama jëmm ji nekkul luy jublu dem safara moom nee dàq na ci moom nee na moom moom du dugg safara tayib mu continue waat moom ba léegi mu ne sama jëmm ji lam yanxu zaati jaalibu niiraani nekkul luy jëm safara luy jublu safara maanaam nee na moom du dugg safara mom àtt ci bopam ni mom du dugg safara te wut ak li nga xamné mom moy taxi wut ak li nga xamanteni mom moy mooy dëppoowu boroom xam-xam yi lu ci njëkk texte yoddo sallallahu alayhi wasallam neena inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al janna hatta ma yakunu baynahu baynahu wa bayna illa dhira fa yusbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu fa ya'malu bi amali ahli ahli an-nar mu ne wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli naari xataa maa yakunu baynahu wa baynaha illa zira summa summa yusbiqu alayhi alkitab fa ya'malu bi amali ahli janna fa yadxulaha yonu salaa sallam nee na kenn ci yéen dina jëf jëfuk waa aljanna ba nga xam ni lu des mu dugg aljanna lu néew la mu ne ndogal bi daal di ëlbatiku mu daal jëf-jëfu waa safara mu dee dugg safara mu ne kenn si dina jëf-jëfu waa safara ba nga xamante ni lu des ak dee lu néew la ndogal bi daal di changé mu jëf jëfu waa aljanna mu dee si dugg aljanna comme gis nga yonent bi sallallahu lu mu la wax na kenn si dina jëf jëfu waa aljanna lu ko deseeg dee lu néew la ndogal bi daal di ëlbatiku mu jëf jëfu waa safara mu dee dugg safara mu ne kenn si yéen tamit dina def contraire bi jëf jëfuwaa safara ba nga xam ni lu des mu dugg safara bariwul ndogal bi ëlbatiku mu jëf jëf euh, waa safaan mu daal di fay mu daal di fay dugg comme lii nii sunna ci boppam moo ko njëkk dàq ñaareel bi mooy boroom xam-xam yëpp a dëppoo ni duñu àtte ci kenn safara wala aljanna lu dul lu ñëw ci quraan ak sunna lu dul ñu ñëw ci quraan ak sunna comme lu mu ñëwee ci alquran ne abu lahab mu ngi safara tabbat yada abi lahabin wa tabba ma agna anhu maaluhu wa ma kasab sa yasla naaran zaata lahab dina dugg safara comme loolu alquran la comme ci la ñuy atte ñaareel bi mooy tamit bu dee côté aljanna la tamit yonent bi salaa sallam xamal nañu ni am na saxaaba yoo xam ne aljanna lañ jëm loolu dañ koy gëm ñu ci mel ni waa badar mu ne yaa ahla badrin i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum def lu leen neex jëggal naa leen lu ci mel ni euh, fukki saxaaba yu mu lim ne ñu ngi aljanna abu bakar omar osman ali talha zubair abu ubayda saad ibnu abi waqas abdurahman ibnu awf said ibnu zayd ak ku ci mel ni bilaal bi nga xam ne nee na gis na ko aljanna te gént yonente dëgg la ku ci mel ni ukaasha bi nga xamante ne tamit euh, ñaanal na ko ne dina dugg aljanna seedal na ko dina dugg aljanna à part alquran ak sunna ñu mu seede ni dinañu dugg aljanna du ñu seedeel keneen dina dugg aljanna kooku ci yàlla la comme moom bu nee moom du jëm safara rek comme nee na moom aljanna la jëm te moom euh, faatoogul naam mu ne lam yenn yanxuni dararu naari dunia mu ne lii di lorub lorub àdduna mu ne non du jublu ci man du jublu ci man wax tasanil baaqi bi xayrin suniya mu ne loru àdduna du jublu ci man waaye yàlla de dafa maa jagleel jàmm rek jàmm juy sax juy sax dàq rek la ma jagleel waaw man moom loru moom du tegu ci man loolu tamit ba tey mu ngi ci woote woo xam-xamu xëy bu woote woo lu ñëwagul mu ngi woote woo xam na lu ñëwagul ci logique boobu la nekk comme aay yi koy radd mooy aay yi nga xam ne moom la tudd ni kenn xamul kumpa ñaareel bi mooy réalité dafa weddi waxam réalité dafa weddi waxam ndax réalité lu ñu xamal moom mooy moom lor dab na ko lor dab na ko ndax tubaab yi euh, jàppoon nañ ko yóbbu ko luy tolloog fanweeri at ak lu teg ba mujj bi dafa bind leetre daal di dëppook ñoom ci ay ci ay accord comme bu nee lor du ko dal comme fii rek réalité da ko weddi aha kay lor dal na ko lor dal na ko ñu jàpp ko yóbbu ko exil euh, ay fanweeri at et mu nekk ci ay loxo yu noon yoo xam ne mënul jóge ci ñoom loolu laa chakk ni lor la comme réalité weddi na weddi na loolu naam <clears throat> comme ñu ànd ak moom ci troisième page bi bi nga xam ne moom la ñu mu ne mallakani maa lam yabihu anni mu ne de moom loo na loo xam ni jaayuma ko mu ne waqaadali baqaahu bil manni mu daal di may wommatal ab desam ci loo xam ne ay xéwal la ak ay jox mu ne karaamati kitaabu man rafaani sama teddange mu ngi nekk ci téere ki ma yëkkati maanaam mooy yàlla la bëgg a wax bëgg a wax ni yàlla borom bi subhanahu wa taala teddangeem mu ngi ko def ci téereem laal la téere bi di al di alquran la shakk la ci namm mu ne teddaange mu ngi ci te wax dëgg fa yàlla ñun loolu gisuñu ko amaana nag mu ngi ci namm ni moom dafa xam alquran wala dafa peeg alquran wala dafa jëfe lu nekk ci alquran mu ne man rafaani bihi ilal jinaani munzu nafaani mooy ki nga xam ne moo ma yëkkati ca moom ca aljanna yóbbu ma ca aljanna depuis ba ma jëriñee yàlla ba ma commencé jëriñ daal man ci la ma yóbbu aljanna ba ma xamee yàlla daal ci laa nekk aljanna comme moom àtt na ci boppam ni moom day dem aljanna te faatoogul loolu moom lu koy euh, tontu mooy aay yi nga xam ne xadis bi nga xam ne moom la ñu wax sànq ci la waxoon ni moom du dem sawara mu ne maxaa na qad naxan nufuusa mu ne effacé na aw dee effacé na aw dee boo xam ni dafa jublu ci bakkan yi mu ne wali siwaaya saaqahu tanfiisa ban dee la effacé comme mu ngi ñëw mu la koy leeral mu ne walisi wali siwaaya saaqahu tanfiisa mu ne nag ku bokkut ak man ku bokkut ak man rek wam na ci moom ay dee wan mën na ci moom dee maanaam fii lu mu bëgg wax mooy bakkan yépp dañuy faatu ba mu des moom loolu leeral na ko ci mbind ci même téere bi dinañ ci ñëw من إلى سوى نحو انتحاء الموت نحو انتحاء الموت هنا وخينا ضرورة الشعرية بي من لو من لو من لو من ولا نحا خينا من لو من لولو موم دي دكوي جبلو لو من لولو دي دكوي جبلو mu ne naxa nufuusa kullaha bi fawti mu ne loolu moom lu ñu wax la mu leer ni bakkan yépp dañuy dee loolu moom dañ koo bind waaye nee nag ba mu des moom ndax nee na siwaaya ba mu des man man moom duma koy dee tayib comme fii wax ji tamit dafa wuuteeg alquran ak sunna wuuteeg réalité parce que fii am na ñoo xam ne nee nañu déggin la laaj parce que waxul ni moom du dee waaye mbindam moo dul dee day des te fii dafa leer tuddul mbind nu fuusa la wax ay bakkan kon loolu leer na kon dafa ne bakkan dafa ne maxaama maatan qad naxat nu fuusa wali si waaya saaqahu gis nga bakkan da koo répété fii trois fois at nu fuusa موخاد ولي سواي ساقه تنفيسا موخاد من نحا النفوس كلها بفوت كم لولو بغا واخ موي كم بكاري لاي واخ مانام بكا كم واخول من كم يني دي واخ نان واخيل لا مندم لو بغا واخ كم كو بغا واخ من موم دوخ نفوس تي امول فين سي عرب كو خامني من لا نم سي واخام اوتيليزي باتو نفوس اك تنفيس dedet boo leen waxee loolu rek mooy nee ngeen seen sëriñ déggul arab te mënul wax comme jiiñ ngeen seen sëriñ déggul arab te mënul wax naam comme fii leer na comme cheikh bi ci bayti yi nee na moom dee moom ñëpp lay jublu ba mu des moom wali si waaya saaqahu tan fii saa tayib loolu dafa wuteeg ay texte ndax ñëpp ay dee borom bi subhanahu wa taala wax na ci alquran mu ne من المبرم سبحانه وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة برم سبحانه وتعالى نين فول المنت نك دي دينا لين فك سي دي دي بولا نيكون سخ سي اي بالا يو خامني سي كاو اسمان لاني كو تباخ دي لاني لين فك فوفو راي لين سوره النساء كوم لي لير بايول كين واي سيرن بي نينو موم moom bokku ci moom moom du dee lii dina ko leeral ci beneen mbind ci téere bi ci biir nañ ci ñëw borom bi subhanahu wa taala waxaat ci alquran kullu nafsin zaiqatul mawti wa nabluwakum bi bisharri wal xayri fitna wala nabluwannakum bisharri wal xayri fitna wa ilayna turjaun borom bi subhaanahu wa taala nee na bépp bakkan gis nga kullu nafsin yàlla bépp bakkan la wax te cheikh bi moom fii tamit bakkan la la utiliser annufuusa tanfiisa annufuusa cheikh sëriñ bi nee na bakkanam bokk ci moom du dee waaye loolu dafa wuute ak alquran ndax alquran kullu nafsin bépp bakkan zaiqatul mawti amul exception day faatu dinañ leen nattu ci lu baax ak lu bon te ci ñun ngeen di dellu ci ñun ci ñun ngeen di dellu mooy dangeen di faatu mooy da di faatu sëriñ moom nee moom bokk ci te nee na lii yàlla moo de dee comme nee na yàlla daa contradiction la mu waxoon ci alquran da koo teggi lii mooy tasawu tasawu mooy lu yàlla waxoon da koo teggi yàlla fii ñëpp la wax deful exception moom nee na yàlla def na exception ci moom moom du dee beneen aaya bi borom bi subhanahu wa taala wax ne wa huwa alqaahiru fawqa ibaadihi wa yursilu alaykum xafaza xatta ida jaa ahadukumul mawt tawaffathu rusuluna wa hum laa yufarrituun suratul an'am yàlla mu ne yàlla moo noot jaamam yi da leen di yónnee ay malaaka bu demee ba dee jot kenn ci yéen malaka yi ñoo koy rey yàlla waxaan ni qul yatawaffaakum malakul mawti alladi wukkila bikum summa ila rabbikum turjaun yàlla mu ne leen faat yéen ñëpp malaakal mawti bi nga xam ni moom lañu sas bakkan yi te ci ñun ngeen di dellu te ci ñun ngeen di dellu yàlla waxaat ci alquran mu ne kullu man alayha faan képp ku nekk ci kaw suuf da ngay dee wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram sa borom rek mooy ki nga xam ne moom mooy des yàlla waxaat ci alquran kullu man alayha faan képp ku nekk ci kaw suuf day faatu day dee sëriñ moom nee na moom bokku ci nee na moom du faatu nee na moom du dee comme la chaque dañuy gëm alquran weddi waxam loolu la sant ñu xam ni nit la buy juum mu waxaat mu ne lam tanxu ni muqaddamatul mawti mu ne jubluwul ci man sax introduction wu dee maanaam muqaddimatu dee sukuraat la bëgg a wax mu ne sukuraat sax man duma ko def waxuma la dee waaye nee na sax sukuraat sax moom da ko dul def ku sukuraatul xam nga doo dee parce que ñëppay sukuraat comme sëriñ bi dàq na ci boppam sukuraat nee na du sukuraat loolu tamit bañ demee ci alquran ñu gis dafa wuuteeg alquran yàlla wax na ci alquran mu ne walaw tara izi zalimuuna fi gamaraati almawti walmalaikatu baasitu aydihim axriju anfusakum imaamu tabari mu ne aaya bi yàlla borom bi subhanahu wa taala nee na bis bi ngay gis tooñkat yi nekk ci sakuraatul mawt nekk ci sukuraatu dee malaaka yi naj téye seeni loxo yàlla borom bi subhanahu wa taala waxaat ci alquran mu ne wa jaat sakratul mawti bil xaqi dalika ma kunta minhu taxiid yàlla borom bi subhanahu wa taala mu ne sakaraatul mawti dafa ñëw nekk dëgg bu ñëwee rek mooy dee egsi bu ñëwee nga xam ni dee moom egsi na mu koy wax muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla waxaat ci alquran kala ida balagati taraaqi bu ñu demee ba nit ki sakaraatul mawti dikkal ko mooy jamono ba muy dee comme nga gis ni aay yépp dafa saxal ni ku nekk day jaar ci sukuraat waaye sëriñ bi nee na moom lam tanxu nii muqaddamatul mawti nee na sukuraat moom non non man du jaar ci man sukuraatub dee beneen bi mooy yonent bi salaa salaam bi nga xam ni moom moo gën ñëpp moo gën a xam ñëpp moom yonent bi sallallahu alayhi wa moo gën sëriñ bii di wax Anas ibnu Malik ci li nga xam ne Buxaari yi da koo génne mu ne yonent bi salaa nekk ci sakaraatul mawti Anas nii la ko waxee ab saxaabi la bu dëkkoon kër yonente bi mu ne kaana bayna yadayhi wa dafa yoroon ab butéelu ndox wala ab ndab bu am ndox mu ne fiihaa maa dafa amoon ndox fa yudxilu yadayhi fil maa i yonente bi ba muy sukuraat ba muy waaja dee sallallahu alayhi wa sallam sukuraatul mawti sukuraat dafa metti ci moom ba nga xam ni day jël ñaari loxoom dugal ko ci ndab di ko raay ci kanam gi muy wax moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne laa ilaha illa allah inna lil mawti sakaraat moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy wax mu ne laa ilaha illa allah mu ne deekat am na sukuraat mu ne deekat ndekete dëgg dëgg dee am na sukuraat allahuma salli wa sallim ala rasulillah yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy waaj a faatu moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak lu muy nekk yonente ànd ak lu muy nekk gën ci nit ak jinne ak fu ko yàlla teg nee na ba muy sukkuraat am ndab lañ ko indil ci wetam muy jël loxoom di ko ci dugal di ko ci dugal di raay kanam gi mu ne fa ma zaalat xatta qubida wa maalat yadahu sallallahu alayhi wa sallam noonu la continuer di def ba malakul mawti jël ruwam loxo bi daal di tokki waaye sëriñ bi nee na moom du dee sax bay sukuraat moom nee na moom sukuraat sax du si jaar mu ne waqad mu waxaat moom sëriñ bi mu àggali mu ne waqad rafaatu bil baqaai sawti mu ne man de damaa yëkkati ci sama voix samay wax mu nekk luy des mu nekk luy des la shakka day des la shakka day des ku wax wax yoo xamante ni day toll nii waxam day des ala kulli xaal tey ba ci wala ba ci libéralistes yi ñoom net ba tey seen wax day day des waaye que day tekki ni la ñuy wax loolu dëgg la Darwin bi nga xam ne nee na nit ci golo la jóge ba tey waxam mu ngi des waaye est que day tekki ni wax jooju dafa dëppoog alxuraan ak sunna bokk comme wallahu almustaan comme ñu yem foofu loolu mooy jàngati ñaari baytu ci des de daanaka day fekk si yële rek comme euh, ñu jàpp ni wax yi ñu fi wax bu ñu delloo ci alquran ak sunna dafa wuute alquran ak sunna te ñoom dañ doon wax ni dañ leen di dee te xamuñu lu leen di dee lan la te ñun dañuy dàq ci amuñu preuve ci alxuraan ak sunna ni yàlla day dee nit te lu ñu fi wax nag wax dëgg fa yàlla mu nekk lu wuuteeg alxuraan ak sunna mu nekk lu leer naññ naññ nañ naññ naññ naññ naññ te ñaareel bi borom bi subhaanahu wa taala nee na falaa tuzakku anfusakum bu leen tagg seen bopp te wax yépp ñu fi gis tagg bopp la ñu yem fii ba xëy na suba wala gannaaw suba bu ñëwee ñu daal di àggali téere bi yëpp la ñuy jàngat incha والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا ما شاء الله جزاكم الله خيرا آه، يلا يلا فايلن يو يا ربي يلا بركيل سين خم خم واخ دغ يالا دي ني نين دي ليرال لي مبير يي كيب كو يالا جوخم خيل ماي كو توفيق دغ دغ بروم بي جل وعلا بولنا كو تامين اك اي نيت يو خامني موم ñu ngi koy leeralal lii di dëgg ndax ñëw wax la ay wax ci ab nit wëlbatiku nit ko dundut waaye ñu jël am mbindam indi tegal la ko ne wax ji moo ko wax fii la ko wax dellul comme ni ko al oustaz Mohamed Ahmed Diop defee al oustaz Fadel di ko defee saa su ne yow tamit bi nga ñëwee foofu nga jaar mooy lépp ànd ki firnde lii nag moo teqale ahlu sunna ak yeneen firq yi nga xam ne nii dunduñu ci alquran ak sunna moo tax nañ ko ñaanee woon ci bañ koy ubbi yal nañu yàlla subhaanahu wa taala saxal ci jàng ak jëfe téere yàlla bi subhaanahu wa ndax moom rekk nag mooy dëgg leneen lu loola ay njuumte yi nekk na xas ndem diina lañ ko tuddee yeneen bi xamu ko saaba yi xamuñu ko loola moom buñ ko gësee ni rek lay def jazakum jazakumullahu xeyran wa ahsanallahu ilaykum wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad salaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi déglu gërëm di sant tey gërëm mbokk yi doon déglu yëpp barakallahu fikum